إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون bokk jullit yi gannaaw ba ñu santee suñu borom ci xéewalam yi nga xam ne mënuñu koo peeg ñu ngi koy ñaan mu julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam ak ñi leen topp ba ila yawmi din mbokk jullit suñu xutba tey mi ngi jëm ci lan mooy wàccuwaayu saxaabatul kiram ci diine ji nga xam ne moom la ñuy dund muy diine yu lislaam gannaaw ba nga xamee ne li ëpp ci doomu jullit ñi tey xamuñu ci saxaaba yooyu dara saxaaba yooyu day moom la suñu borom tagg bi mu tànnee ab yonentam daf koo tànnal ay saxaaba saxaaba yooyu nekk yi tànniif looloo tax borom xam-xame lislaam dëppoo nañ ne képp ku dul saxaaba saxaaba moo la gën suñu borom ne muhammad day yonente bu yàlla la waaye ña nga xam ne dañoo ànd ak moom muy saxaaba ya seen mandarga mooy ñu tar lañu ci kaw yéeféer yi ñu am yërmande ci seen biir seeni mandarga ña ngi leen di fekk fu ñu toll ña ngay rukkoo ak sujud lenn dong la ñuy sàkku ci seen dund mooy ngëneel yiy jóge ci yàlla ak ngërëm bay jóge ca yàlla seen mandarga yi dana seen ci seeni kanam koo ci jàkkaar lool xam ne kii day nitug dëgg la kii day sori na ay tappale noonu la feeñee ca tawraat noonu la feeñee ca injiil borom bi nee na moo leen jëmbat daa di leen di yëkkati ñu dëgëral ak yeneen tam ngir mu merloo ci yéeféer yi kontaan loo ci la nga xam ne mooy seen borom borom bi nag mu ne mi ngi dig képp kuy jëf lu baax gannaaw ba nga génnee njëggal ak la nga xam ne mooy yoon bi gën a màgg ca may aljanna yal na yàlla jagleel ñu ko mbokk sahabatul kiram xam leen ne day ñoom la yàlla defoon ñu raw ñoom la yàlla tànnoon ñu gën a sell moo leen ko ñëw seen gannaaw la nga xam ne mooy pas-pas ci diine waaye gën a mat rafetal la nga xam ne mooy jaamu yàlla seen jukko yi day moo gënoon a tedd jukko yi keneen ku dul moom seen jëflante seen biir moo gënoon a rafet jëflante keneen ku dul moom looloo tax ba jullit ñi war a jàpp ne ñooñu am mbooloo la moo xam ne tànniif lañu suñu boroom sellal leen def leen royukaay tey jii buñ bëggee jullit ñi delluwaat fa nga xamee ne fa la yàlla waajaloon pour ñu dellu fa te muy jiite adduna bi woote ca la nga xam ne muy dëkk njëlbee ñu jéego ba mooy ñu jéem a nafaraat dund sahabatul kiram jéem cee tàggat jéem cee yar seen njaboot lii rek moo mën a delloo waat jullit yi seen kattan mbokk jullit sahaaba yooyu seen dund mboole seen mi ngi tënk woon ci bëgg lu baax daawuñu jëkkante lu dul ci lu baax dara musu leen a yéem ci àdduna lu dul koo xam ne da leen a raw ci jaamu yàlla ba loolu moo tax ba yenn ci fuqaraa yi ñoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay yow mi yàlla yónni ñun kat ñi ngi nii ñi ngi julli di woor di jihaad waaye borom alal yi ñoom ñi ngi koy def comme ñun te ñi ngi def lu ñu deful te mooy ñi ngi jël seen alal di sarxe yonent bi alayhi salaam ne leen bu ngeen jullee ba pare day leen wax subhanallah fanweer ak ñett alhamdulillah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett ngeen wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir da ngeen raw képp koo xamee ne nii deful na yéen da ngeen dab ku leen rawoon mbokk loolu day ñu misaal rek pour wane ne sahabatul kiram seen yéene ci àdduna nekkul woon kii am na ay gage ooma ko kii am na woon waay ooma ko kii am na ay soxna ooma ko mais lan moo leen yéemoon ku leen raw raw ci jaamu yàlla mbokk sahaaba yi ñu ngi noonu yàlla laabaloon leen ci lépp loo xam ne nii ay jukko yu bon la ñu defoon li nga xam ne mooy sacrifice jël lañ amoon ak as néew séddoo ko ak seeni mbokk julit ñoo xam ne bokkuñu ñoom dara yàlla wàcc ay aaya tagg leen ci loolu yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa lu ñu am lu mu néewee néew dañ koy séddoo ñii ñoo dëggaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg bu àndul nag benn naafiq ñoo ëppoon kersa ci lu yàlla bind waaye ñoo ëppoon ragal yàlla ca la nga xam ne mooy gannaaw yeneen ci yàlla yi yàlla defoon leen ñu dëddu àdduna dëddu boo xam ne mooy daawuñu ko xëccoo waaye yàlla defoon ci ñoom ak fegu ñu dëgg la nga xam ne nii mooy jëriñ seen bokk julit ku nekk suufe sa kanamu moroom ku nekk ci ñoom am yërmande ci sa moroom waaye noonu ñu nooye woon ci seen biir noonu lañ taxee woon ci jihaad fi sabilillah jël seeni bakkan teg ci loxo yonente bi alei salatu wasalaam keroog bu ko saat ibne muaz di wax ba ñuy waaj a xare badr mu ne ko ay ñu yàlla yónni ñun ñooy waa ansaar wallahi déggal biñ nga déggal boo ne woon suba nañ dem ñu xuus géej gi gàll ko ñun ñëpp daal topp sa gannaaw kenn du dellu gannaaw mbokk di ñooy sahabatul kiram jël seen alal teg ci loxo yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi noonu buñ la waxee ku nekk ci ñoom lan la sacrifice la def ci alal da nga yéemu ci yàlla ba xoolal keroog bi Omar ibn Xattaab jógee ne Omar Aboubacar day te yonente bi ma sànn woote moo may raw waaye suuf tey yonente bi woote ci jamono boo xam ne ñu ngi war a jihaad trésor public amul dara Omar dem ci lu ko yàlla wërsëgaloon ci alal mu xaat ko ci digg bi indil yonent yàlla bi bir ñëwee fekk Aboubacar jóor lu ëpp lu mu jóor yonent bi ne waaw Omar loo bàyyi sa waa kër mu ne yow mi yàlla yu ni bàyyi naa fa lu toll ni li mu indi mu ne waaw Aboubacar loo bàyyi sa waa kër mu ne bàyyil naa leen bëgg yàlla bëgg yonent yàlla lépp luy alal mu indi ko mu tax gaa yi ñuy mex nañoo dab la leen yitteeloon mooy fexe ba am mbëggeelu yàlla am mbëggeelu yonent yàlla mbokk sahabatul kiram mooy ñi ngi noonu ñoo dëggaloon risaala yonent bi alayhi salaam mu noonu ànd ak moom ci ay coono yoo xam ne nii dañ naan la daa lañ def lu jóge juróom-ñaari jihaad yoo xam ne amuñu luñ daan lekk lu dul ay xobi garab daa lañ dem ba buñ daan dem wanak dañuy mel ne ni xarit yi demee wanak waaye loolu ñu muñ ko ngiree kaddu bi yàlla bi daal di taxaw ngiree l'islam tasaaro yàlla yàlla fayal ñu leen ñoo tax ñu toog fii tey di julli juma ñoo tax waa Indonésie waa Amérique waa Japon partout dans le monde tax takkuwaay ba nga xam ne moom la sahabatul kiram takku woon looloo tax ñoo jël drapeau bi gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tasaare jihad fi sabilillah ñee tasaare xam-xam fi sabilillah ñu daal di wër àdduna naam ñii ñooy ña nga xam ne nii ñoom la suñu borom taggoon ñépp ñoo xam ne dañoo bëgg am ngërëmal yàlla mënoo koo amee feneen fu dul jaar seen gannaaw suñu borom mu ne assabiquna al awwalun min al muhajirin wal ansar xoolal ñi nga xam ne ñoo jiitu naam ñoo jiitu ñoo raw ñoo ñu jëkk keneen ñu ngi leen a dab wallahi du imaamu Malik du Shafii du Buxaari tabaxal mille daara ubbil mille dëkk yónnee fa lislaam ñoom ñooy as-saabiquun kenn mënu leen raw kenn mënu leen a dab as-saabiquun al-awwaluun borom bi nee na mooy min al-muhaajiriin ñu gàddaayoon seen alal ak seen mbokk ak seen njaboot ak waa ansaar ñu leen teeru woon dalal leen borom bi lu mu leen ñetteele mooy ñi nga xam ne dañ leen a roy topp leen bi ihsaan bi ila yawmi diin yàlla mu ne ñii de radiyallahu anhum ñii rek la yàlla gërëm te mi ngi leen di waajal àjjana joo xam ne dara mankiwu foo lii mooy texe bi gën a rëy yàlla yàlla boole ñu ca am waaye kenn du ko am lu dul koo xam ne daa jël sahabatul kiram ñuy ay sëriñam jël sahabatul kiram ñuy ay ñam gën a sopp gannaaw yonente yàlla ba mbokk sahaaba yooyu ñoom ñoo jottali woon diine ñoo ko jëloon keneen ku ko xam ci ñoom nga ko xamee loolu tax seen déggin kenn du ko weccee dégginu keneen ku dul moom loolu mbokk mi ngi noonu heure bu sahaaba yi dëppoo ci dara mboolem borom xam-xam yi lislaam bu ñu waxee lu safaan ak loolu la sahaaba yi dañuy wax la sahaaba yi wax la ñu topp ndax ñoo gënoon a xër ñépp ci diine ñoo gënoon a mat ñépp ca la nga xam ne mooy wattu loolu la yeneen ci bi alei salaam ñaanaloon looloo tax seen déggin ci aayab alquran seen déggin ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënul yem a dégg lu leneen ku dul ñoom radiallahu anhu mbokk ñi ñoo jàngoon diine bañ koy jàng benn intérêt adduna taxul woon ñu koy jàng jàng ñu ko woon ngir dajale nit ñi ñu ay mbooloo ñuy bay seeni tool ak di leen tabaxal ay pale dajale wuñ ko woon pour nit ñi di leen dajale des millions ak des milliards dañ koo dajale woon pour jëfe ko seen njaboot jëfe ko ñu jottali ko doomu aadama yi lii dong moo taxoon sahabatul kiram jóg looloo tax suñu borom yàlla barkeel leen ñu barkeel seenu dund sahaaba yooyu teguñu woon seen bopp benn coono diine ji jàppe woon nañ ko mooy qaala allah qaala rasulullah leneen lu dul qaala allah qaala rasulullah seen yoon mosu caa nekk mosuñoo sos dara mosuñoo indi leneen lu dul loolu loolu moo tax ba képp ku jóg nag gannaaw ba ne kat da nga bëgg a dem ci yàlla waaye am nga ay raccourci am nga ay yoon yu gën a gaaw yoo xam ne man ngay jóge yàlla wallahi yaa ngi dugal sa bopp ci fitna bu rëy suñu borom yàlla moo ne wa man yushaqiq rasul min baadi ma tabayyana lahu lhuda ki nga xam ne dafa wuuteeg yonent bi gannaaw ba ko njub leerale wa yattabi ghayra sabili lmuminin mu jaar beneen yoon bu dul yoonu julit ñi ku mel noonu day danaa ko féete nag seen bëgg a féetewoo ëllëg ma tabal ko sawara mboole ñu borom xam-xam ni dëppoo nañ ci ne la nga xam ne mooy sabilu muminin mooy tariqa ba yonent bi nekkoon ak sahaaba lan mooy al muminin ñooñu yàlla ne ku juyoo ak ñoom danaa la tabbal sawara jamono bi aay bi wàcc du woon ñenn lu dul sahabatul kiram mbokk ñooñu ñooy ña nga xam ne ñooy royukaay ya ñooy sëriñ sa ñii ñooy teete xeet bi jëmaleen fa yonent bi alayhi salaam jaaroon mbokk saxaaba yi ñu ngi nii ñooy ne jébbalu loon yàlla jalla wa ala ñooy ña nga xamee ne nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala def na leen ñuy royukaay waaye yonent bi alayhi salaam it def leen ñuy nattukaay ñuy attee la nga xam ne mooy xeet mooy juye bi nar a ñëw rasul nee na su ma fi jógee yahud yi nasaraan yi day teqalikoo nañ juróom-ñaar fukki mbooloo ak benn yahud yi teqalikoo nañ juróom-ñaar fukki mbooloo ak benn nasaraan yi juróom-ñaar fukki mbooloo ak ñaar sama xeet bi dana mas a teqalikoo juróom-ñaar fukki mbooloo ak ñett benn moo cay ñooñu àjjana ña ca des ñëpp sawar lañ jëm saxaaba yi na ko waaw ñooñu nar a nekk ñooñu àjjana mooy ñan yonent bi alayhi salaam ne leen mooy li nga xam ne maa ngi koy dund tey maa samay saxaaba mbokk xadis baa ngi noonu Abu Dawud solo na ko Tirmidi solo na ko Albani ne xadisul saxiix ci xadis yi gën a wér la bokk loolu it mbokk julit tarixa yi bëri na partout dans le monde kenn xamul ñaata lañ ci créé waaye leen dal na waay sa tarixa bi nekk tarixa Abu Bakar Omar Ousmane Ali ñooñu ñoo nekkoon ca tarixa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bis boo duggee bàmmeel wallahi duñu la laaj suñ càmm duñu laaj suñ njaay duñu laaj seen jaxate li ñu lay laaj mooy ka nga xam ne mooy su yonente sallallahu alayhi wa sallam ña nga xam ne ñooy ña yàlla ne ñi leen royoon danaa leen tàmbal àjjana yàlla leeral na ko léegi mooy almuminin mooy ñu wóoroon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii mbokk ay mbir la yoo xam ne jurit bu nekk war na cee bàyyi xel mbokk saxaaba yi la taxoon yàlla yëkkati leen mooy dañoo nanguloon yàlla yàlla bind ñu lu dul ñu jaamu ko mbokk xam ngeen jaam mooy lan jaam bu baax mooy ki nga xam ne day déglu ak sangam du def lu lu dul lam ko defloo waaye lu ko tere mu bàyyi kii mooy jaam bu baax saxaaba yo nag ñoo jiitu woon ci loolu heure bu ndigalu yàlla ñëwee daaw ñu ci hésité rasul salallahu alayhi wa sallam yàlla natt na ko mu dem madina bi mu nekkee makka daana jublu ci kaaba gi di jublu jublu baytul maqdis te palestine ndax foofu la ko yàlla waxal mu jublu ko mais amul woon problème daana mën a bo boole ñaar yi bi mu nekkee makka mu jógee fa ñëw madina mënatu koo boole buy jublu al aqsa day woon gannaaw kaaba bi muy toroxlu ci yàlla ba yàlla jox ko ndigal ne ko léegi nag jël jublu kaaba bi loolu bi muy wàcc njël bii ni julli mi ngi fekkoon yoon ci bi julli ah julli takkusaan kenn ci sahaaba yi jullee ak moom bi ñu jullee ba pare mu daal di fay jëli dem ci beneen jàkka am na ñu ne masjidu Quba la ñu ne noonu am ñu koy wax masjidul qiblatayni mooy bi mu demee ci beneen jàkka ñoo nekk fa ay sahaaba ñoom na ngay jublu al aqsa ci timis mu ne leen hey yeneen ci bi laa àndal julli takkusaan moom de yàlla nee na ko nu jublu kaaba ga gaa yi ci biir julli ji lañ wëlbati ko wëlbati ko wëlbati ko ba jublu kaaba ga ci seen rukkoo ba ñu rukkoo lu tax ndax mooy waxi yeneen ci bi alayhi salaam amul demal ma ñëw qaala allah fa bil ayn wa ras qaala rasulullah fa bil ayn wa ras mbokk nii mooy la nga xam ne nii moom mooy sahabatul kiram lañ daan jëfee ndigalu suñu boroom ak ndigalu yeneen ci yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam mbokk dañuy xool kenn ci ñoom ñu boo ko xoolee ci seen melokaan yu jëkk yooyee bu ñu xoolee ki nga xam ne nii moom mooy abdullah ibnu omar radiallahu anhu abdullah ibnu omar dafa toogoon njabootam mu daal di ne ay yéen fépp ko ci soxnaam tàggu ne day dem jàkka ja day bu mu ko tere yonent bi alei salaam nee na borom kër bu ko soxnaam tàggoo damay dem jàkk bu mu ko tere mu fekk fa kenn ci ay doomam mi ngi ko tudde woon bilal bilal jëg na ko ah waaw xanaa yow mi bàyyi yow mi soxna yone jamono jamono yonent bi la waaye soxna yii day duñu leen bàyyi ñu dem ci jàkka ja waa bi nga xam ne mooy nettali nee na abdullah bi mu jógee tëgg ko am fes ba ma juddoo ba tey musuma dégg fes bu toll noonu mu ne ko yow ma ne yonent yàlla nee na nga naan ma bàyyi nangam wallahi dootuma wax ak yow ba baa may day ca doomam bu mu jur lii mbokk da ngay gis moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yare woon loolee nga xam ne mooy sahabatul kiram ci nañu daan jëli la nga xamee ne mooy waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Saïd al-Xudri mi ngi nettali nee na yonent bi bis mi ngi jiite ñuy julli ba mujj rek yonent bi ci biir julli gi mu summi ay dàllam saxaaba yépp summi seeni dàll yonent bi julli ba pare na waaw lu tax ngeen summi seen dàll yi ñu ne ko ah dañoo gis mu summi sa dàll ñu summi suñuy dàll mu ne leen déedéet man Jibril daf ma dikkal na ma sa dàll yi sobe mi ngi ci loolu mu ñuy jàngal ne mbokk saxaabatul kiraam daawuñu toog di xaar ndax yonent bi day wax waaye lépp loo xame ne nii yonent bi alayhi salatu wasalaam da ko daan nekk di ko jëfe loolee da ngay gis ne dañ daan taxaw lépp tax ci loolee di ko jëfe daawuñu ci bàyyi lenn radiallahu anhu lii moo taxoon yàlla subhanahu wa taala barkeel seenu dund lii moo taxoon yàlla subhanahu wa taala jëloon leen ah def leen ay royukaay ba seen taxawaay lañu liggéeyal lislaam ci diir boo xam ne nii daanaka ay ñaar fukki at ak nangam dem fanweeri at islam ñëw na ba biir Afrique islam dem na ba la nga xam ne mooy frontière yi Chine radiallahu anhu mu bokk nag lu metti tey mbokk lu bëri ci nit ñi tey xamatuñu taxawaayu sahabatul kiram néew na nga toog dégg ko ñu taxaw di wax jaloore sahabatul kiram dañuy dajale jullit ñi des centaines de milliers su ñu ñëwee suma bàyyi ne suma maam ne su ko defee génération xale yi léegi xamatuñu lu ñuy lu dul bàyyi ak maam moom la ñuy waati moom la ñuy wax ku ci ñaan ci moom koy ñaani loolee mbokk nekk na mbir boo xamee ne nii wallahi wàcce wuñu nit ñi seen place mbokk doomu aadama mën na baax ak sëriñ mën na baax waaye nag ngal la waay doo bul jaawale mukk yenn ak yi aqu yàlla bu ko jaawaleeg aqu yonent yàlla bis boo ko defee sa diina yàqu na aqu yonent yàlla bu ko jaawaleeg aqu keneen ku dul moom sahaaba la ak ku dul sahaaba boo ko defee sa diina yàqu na waaye maa ngi leen maa ngi leen di xamal it ne la nga xam ne mooy aq bi sahabatul kiram am ci xeet bi wallahi yemul ak beneen aq bu bokkul ak ñoom radiallahu anhum yonent bi salallahu alayhi wa sallam joxe na ci misaal boo xam ne bépp julit war na koo dégg yonent bi alayhi salaam nee na sahaaba yi nga xam ne ñoo jëkk a ñëw gëm ko bu doon kenn ci ñoom daa amoon liibaru or mooy liibaru or mu jël ko joxe ko fi sabilillah mu am ko ñëw seen gannaaw am montagne bu toll ni Uhud nga xam ne mën na nekk sax un milliard de tonnes koo koy dépensé ko nee na loolu mu dépensé mënul dab la nga xamee ni nii mooy libre or ba de loolu tax sahaaba yooyu nit mën na leen a gudd fan nit mën na leen a gën a bari lu mu jàngale nit mën na leen a gën a bari lu mu dugal ci nit ci lislaam waaye nag ngallawaayi xamal ne mënoo leen a dab abadan gannaaw yonent yàlla muhammad ña nga xam ne ñooy ñu gën ñooy sëriñu sëriñ si ñooy royukaay yu wóor ya nga xam ne amuñu benn échec ndax yàlla moo leen ko garantir mbokk mooy sahabatul kiram yooyu nga xam ne yal na yàlla boole ñu bëgg leen bëggeel gundul bëgg ñeneen ñu dul ñoom yal na yàlla wërsëgal gannaaw yonent yàlla bi ka ñuy gën a bëgg mooy sahabatul kiram yal na yàlla wërsëgal ñu gëm gëm gën gëmoon yal na yàlla wërsëgal ñu jébbalu ko jébbalu ko naka sahaaba yi jébbalu noonu waaye yal na yàlla boole ñu ñoom yowm alqiyama yal nañu yàlla boole ñoom ci firdawsi l ala mi ngi noonu mbokk julit allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina azab annar rabbana la tuzig qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين